وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تناه بك جلدي مبك تاليبي نولين دي نيو نيو بالإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو نجي تاي تي كرسمي خليل مبكي كم نكو باخي باخو دف المجد bu bisub salatu على nabi jubse ñu ñew ci mom dagan ci mom mu waxtaan ñu jajj ñu ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu bu baax di ko jot nuyoo sëñ Bassirou Touré di ko wax ne ko mbooloom yëpp ñi ngi am mbégte ak kontante di ànd ak moom jotaay saa su nekk ci jotaay yi nga xamante mi ngi ñu koy may at mu jot di ko ñaan saa borom dolli ko kattan dolli ko ak wér ba lii mu nam moom liggéeyal maam bi sëñ Tuubaa su moom defal ko ko ci barke sëñ Tuubaa mbokk yi ñi ñëw fii kër Serigne Khalil Mbacke di wàcc bisub salaatu ala nabi bi nga xamante ni ñu ngi koy amal le 14 décembre 2024 fële ci Suba Sam Bokhatul Moubarak kër Serigne Bassirou Touré ak jotaay bi li ko waral mooy ñëw dagaan ci Serigne Khalil ngir waajal bis bi mu jàjju ñu wax wax ñu ci jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo koy xencu di ko di ko di di di gëstu mbiram di julli moom saa su nekk suñu borom gën ñu may katan ba bu ñu dégloo waxtaanam di gëna a ci mom di ko gën bëgg di gëna jëfë ndigal li nga xamanteni ni suñu borom moo ñu ko digal ci mom kon dañuy jox kaddu gi sëriñ xalil mbàkke di jox nuyo wa keppangu ko salatu ala nabi bi yépp di jox nuyo bu sel di diko di ci loxo suñu basiru touré diko tek ci loxo bu sel bi kon ñing koy jox kaddu gi mu waxtaanal ñu ci jukkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al bi ñu ngi leen di nuyu kon di leen ziyaara jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa al xalifatul aam li taayifa al muridiya ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di leen yóbbante nuyoo ci sëriñ Bachirou Touré man itam di ko nuyu di feddale ni ñu seq ci ak mbokk ak kóllëre di leen nuyu waa kuréel bi ñëpp di rafet lu baax itam liggéey bi ngeen di taxaw ci dëkk bi lépp dugg ci liggéeyu sëriñ bi ñu ngi koy rafet lu bu baax a baax ñu ngi ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wa boo gisee ñuy julli ci moom di ko ñaanal jamono bu nekk loolu delloo ko njukkal ndax koo xam ne bu dul woon ak moom yàlla mën naa bañ a bind kenn te ak leeram ak mbaaxam nit mooy li jagal àdduna mooy li ñu dund ba ba léegi kooku moo tax jamono bu ne nga naan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ngir delloo ko njukkal ci loolu moo tax sax maanaam na jotaay bu ñu waxee woon lu mel noonu bi yàlla ne julli leen ci moom julli gënam yàlla kenn mënu ko moo tax ñu delloowaat ko ko ne ko julli ci yow yaa ko man moo tax lu bari usalli wu usalli mu doo dégg ñu ko allahuma salli ngay wax yow yàlla jullil ci moom te moom dane woon julli leen ci moom waaye ñu delloowaat ko julli kon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yàlla moo ko melal noonu moo ko waajal ba mu mel na mu war a mel mu tagg ko wa innaka la ala xuluqin azim melokaan woowu itam di loo xam ne yërmande yàlla rek tax mu mel noonu moom yàllaa ko melal noonu xuliqta mubarraan min min kulli aybin ka annaka xat xuliqta kama tashaw amar saw xi defe na ma ko waxoon loolu yow de yàllaa la bind bindiin woo xam ne benn sikk nekkul ci yow mu mel ni bi la yàllay bind dangaa da ko wax ni nga bëggee rek mu mu binde la noona loolu kon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax moom yërmande yàlla tax mu mel noonu suñ borom neena ko ci alquran fa bima rahmatin min allah lin lahum ni nga noyé mel ci nit ñi yërmande yalla rek tax wala kunta faddan ghaliz alqalb lan faddo min hawlik so ne won jog ne jag kon nit ñi nga gis ñu sawet kenn ne ci sawet ñëpp dañu dem bayila fi motax kon ku yàlla yónni mo raw wax ak nit ñi faaw noonu rek lay mëna mel bu ñu bu nit ñëpp gennon bayiko kon woote gi muy woote nu muy wax ak nit moo tax kon loolu ab laytaay la ci mu war a jottali li ko yàlla yónni woon yàlla nag yaral ko boppam ni mu ko waxee addabani rabbi wa ahsana ta'dibi yàlla ma yar waaye yar ma yarin wu rafet moo tax mu mel noonu moo tax moom kenn mënul xam ab dayoom lu ci waay mën a xalaat wax ko ci itam la ci kaw rek ngay mën a xam waaye la ca biiram ak dayoom yàlla rek moo ko mën a xam moo tax sëñ bi ne waana kullu zi ilmin wa saayin wa rubbatin anil Mustafa fi xulqihi alxaaisi lonli ñëpp kenn ku ne lott nga ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan moo tax mu xamle moom sëñ bi ne moom wa huwa al jëli wa huwa al xafi mooy ki ne fàng nga xam ne loo ci xam bëgg xam rek ci kaw gi waaye wa huwa al xafi mooy fi jafee xam nag mooy ki ne fàng waaye mooy ki nëbb wa huwa al jëli wa huwa al xafi waaye moom sëriñ bi yàlla yenkewal ko moo xam ci lu bari loo xam ne ci ay melokaan yoo xam ne bàkk na ko ca wax ko ca liggéeyal ko ci itam liggéey boo xam ne moom sëñ bi wax na ne kenn defaat lu ni mel ci lim lim lim jox yonent bi sallallahu ci liggéey yooyu moo tax kon ku ci doon bëgg xam dara dellowaat ca moom lam bind day gën a gaaw bind na ci lu bari ci ay melokaanam waaye bu naafiam jikko yonent bi rek la ci wax jazbul xulub li ko yonent bi la ci la ci wax raaya li ko yonent bi la wax bari na waaye ñu jël rek muqaddamaat xool ni mu ko indee ak ni mu ko nose ak wax yi ni mu koy tegalee nga xam ne baat bu bu ci wax rek benn baat bi képp mën nga ko jël indi ci lu bare bare bari loo xam ne doo am fu mm-hmm. waaye mu mel ni kon su ñu xoolee loolu mu ko wax ne wan naasu wal miisaan wan naasu wal miisaan moom mooy mooy nit ñëpp moom yonent bi suñu jëleen ñëpp dajale ko rek day mel ni buñ leen tegee ci balance teg ko ci balance balance am day war sax waaw loolu nag Ahmad Sawqi waxoon na ko ca waxam ya laysa alallaahi bi mustankirin an yajma al alama fi waaxida yàlla tëwu ko mu jël àdduna bépp nit ñëpp lañ leen di bàkkee di leen ko tagge mu def ko ci kenn nit loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal miisaanu mooy peesekaay bi nga xam ne lu ñuy natt jëg maandu euh, foofu ci moom lañuy ñuy dal moo tax benn bis benn xeex bu am ba noppi ñuy séddale màng gi xam nga bu ñu bu xeexee bu xeex bi jàllee dañuy séddale kenn ku ne ñuy séddale ay daggiti or ak ay jur kenn ku ne ñu jox la am waaju xaw a jama jama ju ne woon ci wet gi ne ko ni ngay séddalee maanduwut de <laughs> waaye keroog daf ko ne waaw bu ma maanduwut kan mooy maandu <laughs> waaw su ma maanduwut kuy maandu <laughs> waaw loolu loolu loolu kon wal naasu wal mooy nit ñi mooy ki mat lépp loo xam ne <coughs> li ñuy séddale ñu naan kii moo jiitale kii jiitale moom lépp da koy incarne benn yoon ma nekkoon sénéral de guerre bi ma nekkoon imam bi ma nekkoon xutbakat bi mooy signé accord yi <coughs> mooy dem ci ngénte yi lépp moo ko boole mooy àdduna ak alaaxir lépp mu teg ko ci loxo ni ñuy jëlee léegi ci doxaliinu àdduna yi nga xam da ngay dégg ñaan pouvoir exécutif pouvoir judiciaire pouvoir législatif ñett yëpp da ko incarné woon yëpp yëpp moo nekkoon président de la république di signé accord yi di jëflanteeg état yi nekk itam attekat bi wax yi di wàcc yes aloo naka yi kuy lu jaaxle boo ñëwee mooy moo lay atte mooy fatwa kon pouvoir judiciaire ngoogu mu ne kon moo yoroon pouvoir législatif bi représenté nit ñëpp an nabiyu awla bil mu'minin min anfusihim mu ne lu fi waaye ñëpp mën naa mën naa leen a jabar ko fi ku fi faatu bàyyi fi njaboot man ma ma maa ko a jël en charge kon moo représenté woon peuple bi ci lépp nga xam ne yooyu yëpp ñuy séddale moom da ko jëloon incarné lépp te teewul yàqalu ko ni muy doxale ci biirum njabootam yar lépp kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax eh, sëñ bi wax ko ci ay bayt yu gàtt nasihun bila richin alimun muallamun saxiyun bila mannin kalaaman yu layoon xool loolu ni mu gàtt waaye boo ko doon firi fi nam <laughs> na la fa fekk gis nga nasiha nasihun nasihun yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy wax diine mooy laabire nga daanaka jël na diine jëpp ko ci baat boobu nasihun nag bilaa richin gis kuy laabire te fekk laabire ka njariñam la cay nëbb wala leneen moo tax muy laabire waaye moom bi laa richen lu muy wax njariñul boppam taxul waaye loola jariñ lay wax loolu di lu am solo alimun muallamun muy ku xam koo xam ne muallamun la moom ñëpp moo leen ëpp xam-xam waaye fi ne boo bindan turam nii du ko xam waaw ah, gis nga keroog bi ñu signé accord yi ci euh, fële sullo xoday ba te bind euh, lii mooy li yonent bi sala li yonent bi yàlla bi juboo ak nangam nangam ñooñu biñ ñëwee dañ ko ne faral lii yonent bi euh, buñ gëmën ne bi yonent ga yëpp du ci am mu yi far ko àll yi du ko far xam nga daan <laughs> ndax loolu li ñu waaye da ko ne anam won ma ko nga xam ne bi bu mu tiimee kii bi xamul xamul xamul mbind mi mënta yër annabiyul ummi yi la ummi yi mooy ku mënta ku ferul ij ba noppi ëpp xam-xam ñëpp xam nga lool loo ci jàng may xam-xam nekkul ci ay mbind ak i làng ak yu mel noonu xam-xam ci dënn lay nekk lu yàlla jël yulli ko ci xolu nit ki lay nekk làng yooyu ay ay jaarukaay la yoo xam ne rek da cay jaare ñëw leer guy ne ci dënnu nit ki lay nekk moo tax ñoom ñooñu ñëpp ginnaaw bi yonent bi sallallahu wa sallam jàlle gis nga ni ñu mel ci xam-xam ñoom itam te ñun nit ñuy jàngi nii ak niñ ci daan sonne daaw ñu àgg foofu noonu loolu leer la gu yàlla xëpp ci xolu nit ki mu jàll ne saxiyun bila manin ku tabe won la waye tabe gi itam bila manin lolou li dulu jafé ay gis nit di jël alalam di sax saxé di joxé waye rek rek mu xaxan deg nit ne ko yow kat bëgg dem rek dimbalee naa fi nangam nangam wala budul ko nag mën yow ci nangam nangam bu ko waxut wax ko ay nit xam nga lolou kon da jëf waye mom lu muy def fàtte na ko yàlla rek moo tax muy def su ma laa yóbbee woon maa anfaqo man nan wala azan moo tax def lu baax kon da ci dégg ne léeg-léeg nga ko def ba noppi yàqaat ko te doo ko yëg su ma laa yóbbee woon an anfaqo man nan wala azan moo tax jëf wattu ko ba mu àgg jafe lool man nga def lu baax yàq ko ci wax ba yàlla ba yàqu ko ci wax nga yàq ko ci yow ci sa bopp nga naaw ko boo ko gisee rek mu yàqu wala nga njëstal ca mu yàqu yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ne day dugg ci jëf waaye moo tax jëf bi yàlla wax ne ku euh, lu baax ba ko tuddee xasana daf ne ku ko indi man jaa bil xasanati ku jëf lu baax fexe ko téye di ko sàmm di ko sàmm ba ñëw ak moom fa lahu asru amsaaliha waaw loolu loolu moo tax man jaa bil xasanati loolu loolu moo ko ci indi ku jëf-jëf di ko toppatoo di ko sàmm ba dara yàqu ci ba nga indi ko kon loolu moo tax li koy yàq ci diggant bi bari lool moo tax bi mu tuddee tabe googu mu toog mu teg ci loolu nga xam ne ci yàq jëf la sax yun bi laa mën ne waaye lim daan joxe Euh, dafay dem ba jiggi dayo am na ci ñoo xam ne sax loolu bokk na ci leen tax a tuub tabug yonent bi sallallahu alayhi wa ndax xam nañ ne lii nituk simple munu ko mënu ko mënu ko mënu ko tabee daal ak yonent moo mën a mel noonu gis nga ki ñuy wax safwaan ci yéefar yi la bokkoon benn xeex boo xam ne bi mu jàllee bi mu ñëwee daf ko jox téeméeri giléem téeméeri xar mu meles ci ko mel luy xaw bëgg ñu daal ko mu joxaat ko yeneen téeméer mu mel ne luy kiyeete mu yokkaat joxaat ko yeneen téeméer muy ñetti téeméeri ñetti téeméeri gàtt ci benn jotaay nga xam ne loolu def na def na ci moom bari ci xolam nee na man yonent bi ci ñi ko gënoon a bañ laa bokk waaye mu jël lu toll ci alal jox ma ko loolu gis nga ak tab gu rëy rëy moo tax bi mu tuddee loolu ba noppi sax yun bi laa mel ni mu ne kalaaman yu lay yun suy waxit wax ji day nooy maanaam du du du du du du mel ni daal ku moom nit ñi suñ <laughs> bay jaxati nee na mooy lu waxib dënn wax seddal ko rek ci gën tàngal ko rek ci bon bul mel ni gargu bangam <laughs> <laughs> mhm. loolu noom noom kalaaman yu layinu mm. bul mel ni gaynde melal nim xar mu jur mu lewet mu ñëpp sopp banaa barbar ngiruk lewetam waaw loolu mooy mooy mooy ni mu meloon moom kalaaman yu layinu nga xam ne suñu boroom def ko def ko mel ni lu jàngal wax ju nooy ni ñu koy defee mu ne ko faqul xallaka faqul xallaka ilaa anta zakka la waxoon Moussa mu ngi ko yebal ci Firawna ne ko ndax bëgg ngaa baax waaw boo demee faqulaa lahu qawlan layyinan da nga wax ak moom ci wax ju nooy wax ju nooy ji mooy faqul xallaka ilaa anta zakka ndax bëgg ngaa baax loolu moo tax may wax ne ñii faral di def ay daxaw ak di woo nit ñi ci lu baax <clears throat> ak di jubbanti loolu war nañ koy jàng ci aaya woowu ndax am na ku ñëwoon ci benn buur di wax moom di ko waar waaye ni mu koy waxee wax ji tàng lool bu mujj buur bi ne ko ah yow de ni ngay waxee man xam naa lu ma bon bon de àgguma ci mel ni Firawna yow loo baax baax de xam naa mënoo gën Moussa kon nag wax ji mën naa mën naa nooy te bañ a àgg ci foofu nga ko àggale nga gis ne kon loolu melokaan la yoo xam ne ci melokaan yi yiñ daan taggee yonte bi sallallahu alayhi wa mu mel ni noonu mu mel ci nooy nga xam ne am na ko nettali ne fi am na nee bi jaam bi nga xam ne moo gën a moo gën a moo gën a doyadi ci ci ci Medina mën naa jàpp ci loxoom fu mu fu mu fu ko neex yóbbu ko fa boo ko noon kaay gane si ma su ma ko yàlla binde woon waaye nag loxo liinu bi tas diidi wala bisru bi sàdd wi li nooy nooy nag maanaam nii la nii la dëgëre نوي غو اندكو دغر لا وال بشرو بسدوي موتاخ سيغن بي ديكو تاغ سي بيمي واخ سي موي بو نافع من ان راما علما او راما غنما او راما ظلما باغي اللقاء وذاك يهدى وذاك يهدى له ويردى ذا بالشقاء موتاخ كي نيو دي ووت خام خام ولا كي نيو دي ووت ام ام wala kii ñëw ngir jubadi bëgg koo agressé ñett lañ lii mooy li ñuy wax ci bayaan la foog nasr fa zaaka yuhda mooy kii wut xam-xam wa zaaka yuhda lahoo kii wut si am-am danañ ko jox fa zaaka yuhda wa zaaka yuhda lahoo wa yurda ki ko bëgg a agressé wa yurda za bi saqaaya ki ñëw ngir agressé mu ñëwee ñu fekk fa jaasi ci wet gi nga tax am benn ci yéefar yi dama xamul ubay ibnu xalfu la xawum dafa ne woon yonent bi yow maa lay bi na ko fen nga maa lay rey ñu bàyyi noonu keroog biñ demee ba dama xamul xare waxul la xawma xare badar biñ indee prisonnier bañ bañ bañ bañ kii leen nga xam ne moom mi ko wax ne ko maala lay rey keroog yonent bi moo ko rey dafa nañ ma ko indil mu indi mu jël li ñuy wax benn kii xaw koy woyee ci ki xarbatu lañ koy wax la boo xam day ànd ak ràbb moom jël kii ko ba diir ko ba jàkkaarloo moom rek dóor ko ci dënn bi jaaxaan mu ne jam naa ko jam-jamiinu haasimi yu nga xam ne kon loolu mu ne moom maay maay ad daxokul xattaal nabi daxokul xattaal maay raye ba nga defee ni kii jàmm rek la raay maay raay nag ma nga defee ne nga xam ne yooyu ñaar yëpp la boole boo ñëwee jàmm fekk fi jàmm boo ñëwee li ci des fekk fa la ca des moo tax sëñ bi ci biir wax ji nee na yasaaru nabi fiiha xafaaya li si antida yaminu nabi fiiha ataaya li sittida ndeyjoor bi ay maye nga ci yoo xam ne kuy sàkku si ay may da nga koy fekk waaye càmmoñ bi yaa xafaa yaa li gentida am na luñ ci nëbb loo xam ne ngir ñi ñëw ngir jubadi <laughs> nga xam ne ñaar yëpp la la boolem moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal bishru bi satwi jamono bu ne xar kanam bi mi ngi belli yaddaxaku bit tabassumi wal wajhu maahil xumami waaye nag bu song jotee rek nga xam ne jàmbaar song na moom nag yàlla bindewoon lépp loo xam ne itam lu lu lu ñuy diisoo ko xalaat la su su fekkee lu jëm ci wàllu nubuwa mën naa arrière retiré wu gis nga keroog xare badar bi ñu campé ci bala ñoo agsi ci teen yi ki ñu wax xabaab ibnul art ñëw ne ko waa fii ñu campé ndax yow da fe fee campé ngir euh, stratégie de guerre wala wax yu gi moo la wax nga campé fi daf ne ko déedéet du du du dara kii la rek ay xalaat la rek mu ne kon nag man li ma gis mooy nañ déplacé wu fii dem ba ba sës ci teen wala ñu kii ko tuuti ngir buñ bëggee naan di dox diggante yëfar yi ak teen yi itam mu ne ko waaw loolu kon baax na moo tax kooku ñu di ko woowee zora moom lu lu aju ci lu ñuy xalaat ak natt rek bu fekkee wax yu gi àdduwu ci day jàpp ne yaa ngi ñoom yéen a ci yam noo ko xalaate rek boo ko gënee rafetu xalaat mu nongu ko fekk la ci loola waaye nag bu fekkee lu jëm ci lu ko yàlla ilham di ko xamal la foofu moom bi tasdiid du du du benn lu toll ak sibra keroog euh, sulu Xudayba ñu accord de Xudayba keroog dafa am ay ay ay ay accords yu ñu signé yoo xam ne dafa ci ci ci ci bëti saxaaba yi daal dafa juunu li ñuy wax juunu daal ci ñoom <laughs> lu lu ay faqaraat yu bari la bokk na ci ku jóge Makka bu demee foofa euh, nañ ko delloo te ku jóge Midine bu bu bu kiyee ak yeneen yu bare bëri Omar mer ca mer moo xam ne ndax loolu daf ko jaaxal booba mu ñëw ci Ababacar ne ko waaw man du ñun ñoo ci dëgg mu ne ko waaw ñeene ci ay caaxaan mu ne ko lu tax ñuy jël suufeli ñu ñu jël kaweli Omar Ababacar ne ah man di gëm naa ne bi yonente la yonente bi yàlla la mu ne ko ah gëm naa ko waaye nag nañ seetaat uh, bàgg ba mu yàgg ndeysaan xam mu demee ba xam mu dem ci ci dëgg mu ne ko waaw mu ko yéefar yi ci caaxaan ne ko waaw lu tax ñuy jël lu suufee la ñoom ñuy jël lu kawe la yonent bi nee na daf ne teg mu yàgg ma ne ko moo Omar lu yàllaa ko bi yonentam def ndax am nga sañ-sañu firi <laughs> na bi mu ko waxee keroog bis bi dafa sedd bis bu sedd la woon na booba ñu ngi taal ay taal yi di waaye nee na keroog dama ñaq ba sama yaram boobu bu ko fàttalikoo nee na dama koy sàkkal sarax ndax ndax ndax ndax ñàngaay bi na ko waxee keroog nga gis kon foofu lu jëm ci wax yu gi ak ak yu mel noonu du ci masla du ci du ci du ci kii te moo ne Omar lu jiitu loolu de bari na yu bëree bëri yoo xam ne bi ñu def ko li ñuy wax remettre en cause mbir yi wax yu gi wàcc ànd ci ak moom gis nga prisonniers yi ci Badar waaye toujours rek dafa am limite yoo xam ne loolu la liinu bi tasdiidi wala bisru bi sadwi nga xam ne toujours limite yi fa lañ fa lañ fa lañ koy yem waaw ah, doon tënk daal loolu ay jikko la ci ay jikkoom yoo xam ne ah, yu ci ràññiku la sant dañuy bu baax rek hmm. ah, moom waxtaan mi kawe na kawe na su lool hmm. ku ko déglu di nga gën a xam jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ba ba nga mën cee ndax roy roy lu baax rek am solo te yonent bi sallallahu alayhi léppam lu baax la hmm. waaw léppam lu baax la kon hmm. dañuy dañuy sant bu baax rek sëñ bi di ko sant bu hmm. baax baax ci jàppandal geeg woyof geeg lépp rek di ko ñaan saa borom dolli ko kattan naa di fàttali rek mbokk yi bisub salaatu ala nabi bi nga xamante ni moom lañ moom lañ dëgmal bis boobu nag dinañ ci fàttaliku way daw li nga xamante ni ñoo àndoon liggéey bi te su borom jël leen ñaan saa borom doolu leen tawfeex fan nekk barke salaatu ala yi nga xamante ni ñoo àndoon di ci liggéey hmm. bis boobu des na leen ci des na leen ci ñaanal bu baax a baax a baax suñu boom doolu na yërmande hmm. di fàttali di wàccee kàddu gi rek jox sëñ bi mu soññu ci salaatu ala nabi ak wàccaayu bis boobu incha allah rabbi ok jërëjëf xam ne am naa di delloo nuyoo yi rek cant yi rek ak rafetlu liggéey bi داون صلاتو على النبي موم سيرن بي فونكلو نكو لول ديما سي مسالك الجنان بيمي لم اسكاري با اكسي تي نام تي واخي رك اب سوني لا بو خامني نك تي اي بنت nga xamne téré bare bare bare bare mom nga lepp salatu ala nabi rek la mom mm-hmm. ne ko nga fatihul bichri yooyu yëpp liggéey yoo xam ne salaatu ala bi daanaka rek mooy la ci loolu ab soññ la ci maanaam ak am solo lu mu gën a bari itam moom du doy ndax loo xam ne foo jullee ci moom moo mu wëlbati ko julliwaat ci yow ndax loolu yàlla may na ko ko yàlla may na ko capacité foo ku julli ci moom mu a jug tontu la ba dinay tukki loolu nag kon liggéey bu am solo la boo xam ne ñeen yàlla ngeen ci def rek yàlla nangu ko te fulal leen ko te àgg ca bis ba ak jàmm yàlla fa yàlla nangu ko ba di ko ci xasanaat yi gën a mu gën a nangu بركة الشيخ الخليل إن يزال صمدا إن النبي الرسول